ab jumtukaay la bu ñu tuddee guichet unique électronique boo xam ni daal nañ ko siiwal ci gëtu acteurs yi nga xam ni ñoo sekk communauté portuaire bi de mu di lu yees loo xam ni dana war a yombal liggéey bi jaarale ko ci xarale yu yees yi lay mbëggatu kilifa yi moo di gën a yokk koom kom gi nga xam ni am nañ ko ci atum 2022. guichet unique portuaire électronique mooy loo doon def ci ay papier nga jóge sa kër dem seeti douane dox dem seeti maire dox dem seeti sa transitaire dox dem seeti diplôme amatul sa kër ngay toog wala sa bureau yor sa ordinateur war a def loolu yëpp ci benn toogaay ci ay minute ci ay ngir gu gàtt nga def ko yor sa këyit dem jëli sa poste mu dib jumtukaay boo xam ni itam dana gën a dëgëral kaaraange gi ci système portuaire bu port autonome bu Ndakaaru mu di kon ak tontu goo xam ni fas nañ ko yéene indi ci yenn ci jafe-jafe yi nga xam ni acteurs portuaires yi doon nañ ko am ci seenub liggéey yi. solution boobu nag tey di tax mu am njariñ mooy dafay ñëw fexe ba nga xamante ne nii. marchandise yi def seen formalité dinañu mën a génn ci port bi ci nu mu gën a gaawee. te ñun acteurs yi aussi dañ ci gis suñu bopp parce que une compétitivité des activités passe forcément par une fluidité une rapidité des des transactions. donc guichet unique nag loolu lay apporté ci lu bees de façon numérique pour que nit ñi kenn ku ne ma a toog nga toog mën la nekk sa kër di mën a connecté ak say acteurs ak say say employés ak ñi nekk terrain pour que liggéey mën a gaaw. lu toll ci juróom fukk ak ñetti milliards ci suñu ko bara koppar moo yokk woon ci koom-koomu port autonome bu ndakaaru ci atum 2022 direction générale bi lay fas yéene yokk jéego yooyee ci atum 2023 jaaree ko ci guichet unique bi nga xam ni fas nañ koo yéene noppi ci ay bés yu ñu dëgmaal